nga am Gambia asalaamaaleykum àddina képp ku seetaan Sahel Network TV fekk naa la bi fi nga toog ne la asalaamaaleykum jox naa la loxo rek ziyaare naa leen sargal leen di leen bëggee di jaajëfal ñëpp nag di joxe di ñaan jàmm ñu dégg jàmm am jàmm comme ni ñu ko faral di defee rek macha allah euh, Sahel Network TV lañ wax looy yëngu di business profile ñuy profile la képp koo xamante ne mu ngi yëngu si business xeebu ma kenn nag ku ñëw rek bugg a jàkkaarloo man dinaa ñëw pil ak mo xam nga jay minti banta sax man bëgg na nga ñëw rek pour adina xam la nga ñëw fi ci Sahel Network TV ñu jakarlo rek ma bay suma gan bi rek mom mi di Lucy mom tamit wax leen mom moy kan ah, wax leen ci lala moy mooy ma sha allah Lucy dalal ak jàmm ci Sahel Network TV. waaw asalaamaaleykum ma ngi naan ni sen tur ak sen sa hmm? may Lucy dëkk Kuluri. sha allah doomi bi Paal hankay loolu neex na trop macha allah lu si nekk bëgg nga wax ñu yow si lan ngay yëngu. ah man fu may yëngu de ku fa war jaar rek. Ah. oh xam nga <laughs> mu ngoon léegi ñu gis te table bi mu ngi yànga macha allah léegi dañ bëgg rek nga wax ñu comme si wàllum products yi nga xamante ne ngay defar say film yooyu macha ah waaye man su may film mooy yi. Mhm. loo gis ni rek si table bi. Mhm. jinjar ba. wàñño bi ak. baw ba juus ba ah loolu neex na man loolu lay kay léegi gis ne comme nga nga bàyyi yépp jublu sa business lan moo a war a dugal comme sa business business bi soo gisee lu dama jaar fa comme si deret bi la waaw da ko doon da nga ko doon kay ko doon suma kay waaw kay man tamit ma doona Mhm. man te ah, man te ma jaar si. ci tànka yi ci tànka yi. loolu neex na trop macha allah kon moom moom suñ yaay bi ñu koy jaajëfal parce que moo tax nga toll fii nga toll nii thank you so much uh, yaay booy uh, léegi lu si dañ bëgg nga wax ñu depuis kañ nga commencé di def business bi. Uh, business yi yàgg na. like six years ago lañ ko commencé man ak suma yaay. ñu siy réew. ñuy réew. bi man ma take over ko mooy mm-hmm. last year laa mm-hmm. ko take over mm-hmm. like may commencé so like bu ma commencé business bi ma commencé change system bi yëpp waaw waaw yokk si say feeñ waaw yokk si sama feeñ di def yeneen ak yeneen macha allah butéel yëpp laa change butéel ahankay dafa civilisé waaw waaw dafa siiw Nisa, Oke, da nyuruh ñëw de dajil sa bop ah kay. na torop. Way minimum for the past 6 years mu ngi Malaysia, yaayam di dugg ak di def raba raba bi rek. Comme kan orangnya dua ngay ya. di ya, last eh, last year yo ya, tam nga take over. Léegi yow fan nga comme lan gis sa si depuis boo commencé jaay bi. bi ma eh, commencé jaay bi kamu gis sama boppa si kanam rek. Isa. Si kanam rek di gis sama mhm. parce que si gannaaw moom. talu moom si kanam rek kay loolu nee soo léegi waaye dañ dee gis tamit yenn jaaykat tamit dañ dee am ay difficultés yu ñu dee face ah, yow lan nga ñëw mën a wax ne comme loolu nga nekk di dund as difficultés depuis boo commencé business bi di jaay ah, lii. sant yàlla mhm. sant yàlla. Mhm. maa ngi gërëm yàlla suñu borom. c'est ça parce que corona bi sax. Mhm. face ma benn difficulté. maa ngi sant yàlla si lu bëri am na ñeneen ñi nag ñu ngi face ay difficult waaw seen business waaw man moom nag face ma dara parce que maa ngi sant suñu borom ndeysaan suba ngoon bu dégg bëccëg kay waaye loolu neex na mu ne moom face benn difficulté léegi dañ bëgg kon nga wax ñu naka nga dee jote sa raw matériel si pour def sa processing bi ah raw matériel yi moom boo ko soxlee moom da ngay dem Serekunda daanaka ñëpp xam nañ fuy Serekunda ah, nga dem uti fuy syndicat fu ñuy oyee syndicat mhm. fuy Serekunda la nekk mhm. maa am suma ay lii moromu jigéen ñu fa nekk. ñi mhm. di dem jënd <laughs> waaw waaw kon di dimbale jigéen si rek macha allah di suma moromu jigéen rek. Mhm. ah loolu neex na ku ku bëgg yu baax yi léegi fan la moo mën a jotee Lucy ak <laughs> naka ak nan la muy def Lucy fan la nekk ak lan mooy contact pour ku la bëgg a jot. aroon supermarket. waaw maag foofu. Mhm. pare suma téléphone number maa ngi use Africell ak Qcell. Mhm. Africell bi mooy 288 6448. Mhm. Qcell line bi mooy 3584 948. waaw loolu la ma rek maa ngi woon secret yi. waaw kon kon kon léegi maanaam ñun moom doo ñu wax lan ngay def fii nii foog nit ka ñëw rek jàkkaarloo yow nga. fële moom boo daree woon rek xam nga àdduna bi léegi moom parce que dama bañ. Venga, ljubanje sača sekere. Suma sekere, suma Enggak, wanya gis ne tamen lusi a danga de ni ke di ah, supply ay company yu bari. So legi ñan company ngay mëna wax ne comme ñoñ nga de gëna liggéeyal, ya, xam affaire yi nekk ci biir fi nga xam ne ñun tam neneen okka sax. Ñu wax la ñu wax ñu femi sax tuti. Ak ma supply QCell. desa, afisel, Ak Samsung. ah hankañ waaye yow kon loolu war naa neex de waa Africell Qcell ak Samsung suñu waree mos yi kon lii xam naa ne comme bëri na feem yi si biir de. lii de ñoom man duma la mën a mos lu si biir sa. waaye ñoom su mag customer yi ñoo la mën a walu si biir. ndeysaan parce que dañ si jaar ñu buñ mosee benn aara ah, yi lu si yow foo nekk foo toolu gaawal gaawal. Ah, naa ne yàkkamti woon nañ ko de ba nga xam jotee dañu def dessert. Ah, nu ko nu ko di waxee ñu def <laughs> lu si loolu neex na waaye léegi kon ñaata nga dee jaayee par bouteille pour nit su buggee de ba pare naka nga dee defee sa delivery service bi tam. ok a mooy 75. icc potu jinjar bi. wonja bi ak buy ba. 75 laa koy jaay. icc potu 75. waaw su tam da bëgg a délivrer. mën naa la ko délivrer foo nekk. ndeysaan doon rek. ñu basi sax. naa ñëw la man man man dama civilisé. waaw. daga bëri feem sax yow axan ah, kay doyloo bay des <laughs> man maa bëgg a man xale kóoloo li bi moom dafa jóge te balaa ñuy commencé balaa ñu doon commencé programme mu ne ma Aïcha man ni ma ragal de waaye mu ngi nii sax mu ngi mel ni léegi man may ges bi sax <laughs> moom moo nekk host bi kon loolu neex na lu si man lii laa bëgg a seen dama bëgg a koo xamante ne ah, focus on on something comme nga gis sa bopp ak ñëpp nga xamante ne comme suñ la soxlaa rek yow sa waxtaan rek sax mun naa jaay sa sa sa sa jus yeeg woon jooy macha allah léegi dama bëgg rek nga fàttali aha uh-huh. healthy yëpp mhm. dafa sella macha allah mhm. ku ko gis nag daf koy jënd waaw lu healthy rek lay jaay mhm. parce que xam nga léegi diabète dafa bëri léegi si dëkk bi léegi moo tax ma bëgg a ñëw si loolu dama gis ne comme euh, ñun dañ fonk ay artificial soft drinks yi yow ñu gis ne yow nga féetoo si euh, natural fruit euh, fresh juice yi kon léegi yow lan nga mën a wax nit ñi comme noonu la ñoo lii loolu la mooy def suñu yarame lii day joxe comme ñu koy oyee waaw waaw man suma produit si suma fresh juice yi. day joxe health que daf si baax. comme day setal yaram. tamit day setal yaram moo tax it yow yaa ngi mel ni. macha allah kay. ah oh ku bëgg a ku bëgg Industry moom nag macha allah di jaajëfal Charles mi nga ah, xamante ne moom moom ma woon yii nga xam ne moom ñoo ñëw <laughs> jàkkaarloo yow léegi comme que léegi agsi na si cappaandaw bi. que man dama bëgg comme nit mu ma dee léebal wala mu wéyal ma léegi yo tanal ci bénn bala ñoy dem nga tagato ah waaw xam nga ma wéyal rek. mu na du ba ah non di xam nga suma gaay tamit dañu ré bala ñuy dem so wéyal lu gata rek ak bala ñuy tàggatoo. ba ba ba baax na su ma non déedéet secret. bi la ku koy wéyal ko. ndeysaan kon loolu jeex na léegi mhm. mhm. lu si dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak waa Network TV balaa may tàggatoo parce que xam naa ne moom time bi xoj nañu waaw maa a nuyu seen tur bi ñu sa network tv ma leen naa seen tur ak seen santa di leen naa wax jërëjëf fan bu gudda ak wér gu yaram di nuyu tam suma yaay tamit di mu pal ak mhm. suma oncle tamit luy mendi te di nuyu tam ñu mhm. ma si support mhm. nah, tam business bi tamit maa leen naa ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram ba leen wax ak duma tamit suma brodom baax bi Charles uh-huh. su nekkutoon moom moom duma filoon ii uh-huh, maa ngi waaw kay di koy ñaanal uh-huh. moom jàmm rek yaa di koy rek <laughs> mu nga thank you so much loolu si lañ amoon si biir kër gi muy yëng si wàllum defar baaba juice wonjo ak jinjeer te xam naa ne yeneen i feem tamit mu ñoo ñu yokk si biir ñun ñu xaar la foofu noonu rek boo ñëwee rek lu bëree ngeen ñëw ah kon neex na ñu tàggatoo ak moom rek thank you so much for watching Sahel Network TV comme suma gars yi nañ ko faral di defee rek bye Thank you.